dañ leen woo nag tey ci cadre activité bu ñuy dëgmal euh, dibéer bii di ñëw ñu tuddee ko football solidaire alors football solidaire nag ñu ko porté mooy euh, suñu structure di institution qui s'appelle école Pi Afrique de l'Ouest école Pi Afrique de l'Ouest mu ngi fii Sénégal depuis cinquante neuf ans ñu ngi Côte d'Ivoire ñu ngi Burkina ñu ngi France et cetera particulièrement Sénégal tabax nañ fi ay école ci euh, booy xool ñu suñuy zone d' intervention c' est très simple milieu rural ngay dem fekk ñu wala nga fekk ñu dans les banlieues parce que tout simplement ñu dañu jàpp ni ñëpp mi xale mi ndaw ñëpp dañu am droit éducation et ñi nga xam ne tamit seen loxo jotul gannaaw moom moo tax ñi teg ñun ay mécanisme pour may leen ñu mën a ay à travers ay bourses yu ñuy teg ñu mën a jàngi wala ñu ñëw tabax école foo xam ne peut-être loxo nguur gi yeggu fa ñun dañu nekk comme ay partenaires ñëw tabax école tabax ay centres sociaux euh, tabax lu ñu naan les fermes écoles di ay prototypes yoo xam ne ay xale yoo xam ne dañoo génn école ñu jàppale leen pendant trois ans agriculture élevage bu ñu génnee ñu mën a opérationnel alors tey nag dañ leen woo ci cadre activité bu ñu wax football solidaire football maanaam ngir jàppale lu ñuy mën a tuddee solidarité ngir jàppale ñi nga xam ne peut seen loxo jotul gannaaw ngir ñu mën a am euh, jàng bu bu bu leer alors activité bi nag ñu ngi koy amal fii nii ci terrain ñaari tali dimanche bi euh, ñaar fukki fan ci weeru février bii nii nañ commencé depuis huit heures ba dix huit heures alors pour bokk lu yomb la da ngeen di forme seen équipe de sept joueurs ngeen dajale minimum parce que collecte la ñun dañuy def collecte mais dañu bëgg am benn approche bu bees population yi mën a def collecte minimum vingt mille ngeen ñëw participer ci activité boobu boobule. amul limite d'âge képp ki nga xam ne yëg nga sa yaram war nga mën a football mi mag mi ndaw mi góor mi jigéen bokk nga ci football solidaire football solidaire daf lay interpeller leneen aussi lu ñu mën a yokk ci loolu noonu mooy euh, football solidaire day wax ak entreprise yi football solidaire day wax ak waa koñ bi dëkkandoo yi maanaam bu ñu ñëwee ci entreprise entre collègues war nañu mën a dajale defal suñu équipe ñu ñëw former équipe ñëw bokk participer ci journée bi. football solidaire mu ngi wax ak mécènes yi ñi nga xam ne peut-être tey yàlla am na lu mu leen cërale war nañ mën a jàppale ñi nga xam ne seen loxo jotul gannaaw ñu ñëw pare ne ay équipe ne équipe maanaam mën nga ñëw def mise parrainer équipe te yow doo football. football solidaire mu ngi wax ak ñi nga xam ne entreprise lañ à travers les RSE. ñun dañuy tabax école dañuy tabax collège Mampati mu ngi nekk biir Kolda donc ay doomu Kolda war nañ mën a ñëw jàpp si parce que lu ñuy wax lu concret la maanaam tey boo ñëwee même suñu rapport annuel après euh, sama collège mun na ko wane di ngeen gis nii lu ñuy wax ni réalité la boo demee Mampatim tabax nañ fa centre sociale bi ba pare tabax nañ fa piste fu booy si xale yi di foowe donc lu ñu bëgg a def mottali rek la tabax collège boo xam ne salle de classe yi autant xale yi nañ ñëw jàng si autant mag ñi jigéen ñi nañu war a ñëw def ay programme d'alphabétisation programme ay entrepreneuriat ak yooyu donc si si biir centre social bi lañ bëgg a tabax loolu noonu donc di si woo ñëpp mag ndaw ku nekk képp ki nga xam ne daal social dala dala dala dala ñor képp nga xam ne doomu Kolda nga aussi euh, nga ñëw jàpp ci activité boobu lay ren Kolda la déwén ñu dem feneen donc bëgg nañ saa yu ñu demee ci benn zone doomu dëkk bi ñëw jàpp si te xam ne lu ñu ciy def xaaruñu si lenn amul benn intérêt ñun bu ci am activité ak suñu projet yi ñun dañuy wax rek ni euh, ñun d'abord dañu jàpp suñu bopp nii lu ñuy def nii suñu devoir la euh, ndaxte dañoo jàpp ni état bi suñu partenaire la d'abord donc moom moo tax ñun ñu ñu ñu tànn di nekk si zone yi nga xam ne mën nañ ne zone euh, yu yu métti la zone périphérique maanaam boo demee banlieue rek ñu fay fekk boo demee en milieu rural dañ ñu fay fekk e ku bëgg aussi nga ñëw da ngay filmer parce que ay c'est concret di gis bâtiment yi di gis ne lu ñu wax nii lu am la quand même on a fait le choix peut-être d'être euh, ñu ñun d'être humble de ne pas faire beaucoup de bruit parce que aussi ça c'est le propre aussi de l'église parce que tam bu ñu fàtte ni c'est avec les pères piaristes mais di wax ni état soxla nañ mu nekk comme euh, vraiment partenaire comme lu ñu nekkee partenaire parce que ñun jàpp nañ ni projet ñuy def nii yëpp xaaruñu ci état mais bëgg nañ aussi mu mu dogale ñu ci yoon bi fépp fi nga xam ne soxla nañ euh, mu surtout d'habitude soxla ñuy soxla c'est milieu domaine administratif la wallu administration donc sànq maa ngi di jox exemple ni am nañ benn projet bu ñuy permettre aujourd'hui ñu may école yu bëri ay tablettes e te loolu du changer dara ci programme bu ñuy jàng dañuy jël programme bi def ko si tablette yi donc permettre xale te Covid bi war nañu ni war nañ yegg foofu donc ci loolu moom dañuy ñaan vraiment état gën ñu jege parce que comme li ñuy wax xaaruñu dara tey boo demee caaro yi ñu ngi tabax foofu benn piscine olympique et piscine boobu aussi euh, ce sera ouvert à tout le monde donc loolu moom euh, ci loolu moom bëgg nañ ci insister pour wax ni bëgg nañ autorité gën ñu jàppale parce que mosuñu bind fenn leer sax di laaj xaalis parce que d'habitude lu ñuy accompagner domaine administratif la ci côté boobu daal vraiment bëggoon nañ ci sentir autorité yi